gars di dem Europe ñi di dem ay Suisse ak ay ay ay allemand man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay Iran iraq téré tan Tanzanie. waaw alaykum nuyu na len bax di len ziar ñu commencé information yi si Iran ak euh, Russie néna ñom ñaar dañu collaborer pour euh bay monnaie bi di dollar. ba tax na actuellement nee na ñoo ngi si waxtaan ñoom ñaar pour def seen euh, monnaie nationale muy Iran ak euh, waa Russie. waaw bu dee ki nga xamante mooy jiite armée bu Pays-Bas moom dafa dafa ni dafa déclaré que ni ne pays nañu préparé pour xeex ak euh, waa Russie ñoom loolu la moom loolu la déclaré ndaxte nee na. Pays-Bas dafa war a jël exemple comme si dëkk yi mel na Suède ak Finlande ak ak république maanaam dëkku Balti yi waaw moom chef d'armée bu bu bu Irlande ma bu bu Hollande moo wax loolu ni kon nag ba tax nee na actuellement nii moom Martin Martin la tudd moom nee na daal actuellement nii Pays-Bas dafa war a préparer mobiliser. pour préparer ñoom daal euh, su ma déggee ni mu waxee de moom actuellement nii euh, ñoom ñoo ngi préparer pour xeex ak Russie euh, mais xam naa gars yi ñoom li ñu doon li ñu bëggoon mooy que ni comme Russie dooleem bu wàññee si di wàññikoo ko si kaw si xeex bi nga xamante moo am biir Ukraine ñu doggali ko xam naa ñoom loolu moo nekkoon seen programme mais ginaaw yàlla seen moom moo tax. siin moom moo tax euh, euh, loolu du mën a nekk siin ak euh, coré du Nord mais ndaxte <coughs> ñoom États-Unis sax lu mel doon na ko wax ni ñoom leenu bëgg mooy def le tout ba état ba ba Russie ak ak Chine bañ seen ànd bañ a nekk loo xamante ne ànd bu ratax lay doon mais non seulement actuellement ni ñoom ñaar seen ànd moom comme bu roog sow armée bii sous-marin bii di sous-marin Russie la euh, neenu neenu sous bi mën na def États-Unis euh, DGR waaw nee na sous-marin bi di dafay dóorandoo soixante douze obus nucléaire da koy dóorandoo soixante douze obus nucléaire waaw ba daal neenu nee na bi mën na mën na sore plus de neuf cent mille kilomètres neuf cent mille kilomètres mën na ko toll di maanaam di dóor obi euh, nucléaire yi mu yore ah, ba tax na naan euh, moom yi muy dóor ni moo gën a garaaw foofu euh, Hiroshima moom sous-marin Russie bi bokk na si sous-marin yaa xamante ñoo gën a rëy adduna bi. moom da moom Danis waaw moom ni si responsable politique yu bu Russie la book moom da doon def euh, benn njiit la euh, dafa jiite benn organisation waaw moom nee naa moom da doon daje taskatu xibaar yi ba tax man ba tax na nee na moo nee na euh, Russie gañe gi nga xamante ni gañe nañ Marinka dana tax ñu gën a mën a aar euh, sécurité Donbass ndaxte ligne de front bu Ukraine dafa def koy gën a sore boo tax na aussi tamit ñëw na si ni euh, actuellement nii dina liggéey bu baax a baax lu jëm si wàllu euh, infrastructure yi ak ak kër yi nga xamante ni dañ ko yàq neen yooyu yëpp dinañ si dinañ si taxaw pour defaraat ko ba ba mu méngoo jamono aussi tamit neen lu jëm si économie région bi tamit. Euh, raison bu Donbass dinañ si gën a euh, liggéey euh, nee na tamit lu jëm si côté entreprise yi aussi tamit bëgg bëgg nañ waxtaan ak ñi nga xamante ni projet bi projet bi ñuy def bi Donbass arrangé na leen pour ñu waxtaan si ci daal moom loolu la doon déclaré tey jii. Donbass daal moom nekk na dëkk boo xamante ne moom régime am teg na si loxo moom ba faaw. moo tax na boo bare na am na ay kii ville yoo xamante ni boo gisee ni ñu ko defaree rek comme si que guerre mosu fa am. waaw neen formation Ukraine yi ñoom ñoo ngi continuer doon lancer attaque euh, Crimée ay midi vingt ba midi et demi euh, nee nag seen principal maanaam ñoom fi nu toll di dóor euh, Odessa la biir Odessa ay missilu missile yaa xamante ni ñoo ngi leen di woowee eh, Neptune Neptune la la la missile yi tudd waaw ba tax na neenu euh, ginnaaw bi nga xamante ni Ukraine yi ñoo ngi dóor missile yooyu ñoo ngi leen euh, benn Russie benn MiG MiG 31 mooy patrouille ñoo ngi patrouille côté boobu di intercepter missile yaa xamante ni. Euh, Euh, ukrainien yi tollu biir Odessa di ko sànni biir biir biir Crimée ñoom ñoo ngi koy intercepté ne environ de quatre quatre vingt kilomètres si nord ouest bi si nord west bi euh, maanaam fa la gars yi nekk di dóor missile mais daal nee na MiG 30 MiG 31 ñoom ñoom ñoo koy ñoom ñooy patrouille diggante boobu yëpp di intercepté missile yi. waaw ba tax na nag nee nañu euh, si dernier vingt quatre heures yi. waa Ukraine yi ñoo ngi gën a yokk di multiplier maanaam li ñuy dóor ci ay missile mais daal na mais nag waa Russie ñoom neen lépp loo xamante ni Ukrainiens yi dóor nañ ko ñoom den ñoom oh, dañ koy intercepté waaw ndaxte comme ni ma ko waxee sànq rek nee nañ seen MiG te MiG 31 yi daal ñoom am na nañu ñoom côté inter maanaam ñoom ñoo ñooy garder côté boobu daal ñooy patri côté boobu ba missile ya bu dee Joe Biden naan Joe Biden euh, perte na euh, popularité am li ko waral mooy que ni politique bi muy doxal au euh, jour léegi nii maanaam jamono ji ñu toll bi nga xamante ni moom lay politiquer moo moo tax mu perte popularité am neen ba tax na neen 17 employé am yoo xamante ñoo ngi woon ci équipe bu campagne am euh, ñoom dañ ko dan ko critiqué 17 employé ñoom dañ ko critiqué ci politique politique euh, bi nga xamante ni moom lay def côté Moyen-Orient bi mais dañ ko nan nan dañ ko critiquer carrément quoi que ni politique bi nga xamante ni Joe Biden moom lay poli moom lay def si côté Moyen-Orient bi du politique bu baax. am na yeneen emploi yu yu gouvernement bi yoo xamante ñoom euh, dañ démissionné li tax ñu démissionné neen bokk na si euh, li nga xamante ni moo am biir Israël muy euh, maanaam neen cessez le dañ def cessez le feu quoi mais Joe moom mm, loolu gars yi saa ko voté biir ONU li muy def mooy da koy nee nañ emploi wam nee nañ ñi nekk si équipe 17 euh, membres yaa xamante ñoo nekk si équipe bu campagne bi euh, neen looloo tax loolu bokk na si li tax ñu démissionné waaw neenu Pologne moom mooy première moom mooy première pays boo xamante ni neen si li muy dépassé si côté défense moom euh, dëkk yaa xamante ni ñoo nekk si biir OTAN nee na moo si première si li ñuy li muy dépassé si euh, côté euh, de défense waaw bu dee <coughs> bu dee maanaam dafa ba am benn institut euh, institut Allemagne boo xamante moo de benn recherche économie nee na OTAN membre yaa xamante ni ñoom ñoo si nekk membre yaa OTAN membre yaa xamante ñoo si nekk neen deux deux pour cent seen PIB yëpp si défense la nga def nee na deux pays ñoom ñoom nee na pays yi ñoom ñoo ñoom ñoo gën a euh, euh, atteindre seen objectif maanaam deux pays euh, dix pays ñoom ñoo maanaam li nga xamante ni moom lañ gën a bëgg si côté défense am nañ ko moom la journal bi déclaré nee na première étude bi ñu def nee na Pologne. Euh, moom euh, nee na trois virgule neuf pour cent si seen PIB ñoo ngi ko dépassé si militaire nee na aussi tamit Grèce moom trois pour cent la est euh, Grèce ak Estonie nee trois pour cent la nee Estonie moom Estonie deux virgule cinq pour cent ñoom moom la ñu dépassé seen système de défense bu dee Finlande ak Hongrie ak Lituanie ak. Lutiani, Nyom, ak Roumanie ak Slovaquie ak Royaume-Uni également ñoom deux seen deux pour cent ñoo ngi ko dépassé si côté seen seen défense waaw ndaxte bu ngeen gisee gars yi ñoom depuis que Russie song Ukraine ba léegi dëkk yaa xamante ni ñoo jege Russie autant daf leen gën a dooleel si seen côté système de défense waaw nee nañu Belgique moom ak Luxembourg. ñoom seen dépense moom moo gën a néew ñoom seen dépense mi ngi tollu si un virgule un pour cent seen euh, PIB waaw pour wax la que ni daal ñoom ñoom li mu dépassé nen dépassé day dem baag si zéro virgule sept pour cent seen PIB pour maanaam daal Luxembourg ak Belgique ñoom li ñuy dépasé ba bare li ñuy dépassé seen côté défense ba barewul daal. waaw ku nekk xam na ni euh, dëkk yooyu des nañu fës torop si giraat bi ni muy doxee dëkk yooyu ba des na li muy fës torop ndaxte jamono yi lépp ndaxte dëkk bu mel ni Belgique euh, ñoom euh, guerre bi dañ si sax surtout guerre Israël bi dañ si dañ si mere européens yi daal dañ si mere ba si jamono yi la paase rek maa ngi gis benn journal. ñu ni am na am na benn société belge boo xamante ni indi si industrie arme lay liggéey dafay liggéey ak waa Russie information boobu jotoon naa ko ba américain yi ni ñoom dinañ def rapport dinañ def enquête si lu mel noonu ba xam dëgg du dëgg kon enquête boobu noonu boobaa léegi xaw ma fun si mujje waaw bu dee John Kirby moom dafa nee moom d'accord na ni Russie euh, si côté moom moo ëpp doole euh, Kiev si côté euh, côté côté air bi côté air bi ak terrestre bi nee na Russie daf si moom moo leen si ëpp doole mais nag waxul comme OTAN wala ñoom seen bopp mais ñoom li ñu wax moom li mu wax waa Ukraine la wax dafa ni Russie moo ëpp doole neen ñoom xam nañ baax que ni Russie côté ressource aérienne bi ak terrestre bi moo si euh, da si am moo si ëpp doole Kiev moom John Kirby porte parole bu conseil sécurité nationale bu États-Unis moom moo wax loolu mais ba tax na nag euh, Russie côté côté bi côté aérien bi ak terrestre bi euh, boobu mu ëpp doole Ukraine loolu moom moo nekk avantage am si guerre bi actuellement nii. waaye nag da ngeen ci mënul dara rek waaye jéem ngeen ba sonn fi ngeen mujj mooy que ni euh, ki doon préparé waaye seen préparation bi baaxul ak kenn xamul man daal xam naa doon doon gémbo fan fekk fan leen fan doon gémbo leneen di si fekk bu dee RD Congo nee na nee na benn inondation bu fa am plus de trois cent morts neen trois cent personnes ñoom ñoo si dee euh, biir RD Congo neen dégâts matériels yi nag euh, euh, doy na wax daal nee na nu affaire inondation bi nag laal na plus de quarante quarante trois mille sept cent cinquante maisons inondation bi laal laal laal na ko apparemment ki déclaré loolu nee na moom mooy ministre bi yor affaire sociale moom moo déclaré loolu nee na total daal euh, affaire bi laal na plus de trois mille trois cent mille ménage inondation bi lor na trois cent mille euh, euh, ménages ba tax na autorités yi neenu ragal nañu épidémie juddoo fa ndaxte comme ndox mi ni muy ni muy ni duggee ci biir kër yi ba nit ñi pour ñu dund wala ñuy naan du ñu naan ndox mu sell aussi tamit bu ñuy togg li ñuy lekk mën na bañ a sell ak yooyu moo tax autorité yi ragal ni daal épidémie am na nu muy demee mën na fa juddoo. waaw beneen bis mooy que ni <clears throat> neen dafa am benn maanaam Ukraine dañ fay jaay ay masques neen masques yooyu nag dañ koy interdi mais neen masques yooyu neen pour nga jot ci sax pour euh, maanaam dafa am benn kii bu koy da jaay dafa am benn magasin bu koy jaay. waaye ba tax neen masque yooyu mi ngi jaar plus de trois cent cinquante dollars moom lay jar ndaxte ku nekk xam na ni actuellement ni Ukraine dafa nekk si mobilisation léegi masque yi boo ko solee da ngay menn na zaaru màggat ba mag moo xamante ne di nga am plus de soixante ans waaw looloo tax am jeunes yoo xam ne ñu koy jënd pour génn bu ndax pour bu ndax bu ñuy génn ñu bañ leen jàpp ak yooyu. waaw te actuellement nii jeune boo xamante ni am mobili la maanaam boo amee dix huit ans dix huit ans ba soixante ans maanaam boo amee soixante ans daal mën nga dem arme te actuellement nii comme ni ma ko waxee rek armée ukrainien bi dañu soxla renforcer seen effectif seen dañ ko dañ soxla renforcer seen effectif ba tax na yenn si soldat yi ba tax neenu am na bare na actuellement ni bare na militaire yoo xamante am na ñoo xamante dañ leen jàpp si mbedd mi la leen di jàpp yóbbu leen si euh, commissaire bu militaire directement du duñu def formation duñu def dara ñoom daal fawra li nga dem xeexi moom xam nga bu njëkk daan nga dem euh, ay quatre cent mille ukrainiens ñoo ngi euh, britannique yi ñu ngi leen di former wala ay ñii ñoo ngi France ñu leen di formé waaye temps yi moom gars yi dañ lay jël rek ni la aywa sa front ba te ku nekk xam ne loolu moom danger la koo xamante deful formation militaire deful dara nga yóbbu ko mooy que ni demal deewi rek. moom kër bi dafa déclaré ni actuellement ni États-Unis amul kàttan ak mën-mënu di jël yeneen fonds di ko jox Ukraine moom loolu la déclaré moom jon kër bi conseil sécurité national bu maison Blanche moom moo déclaré loolu xam naa nag looloo tax gaay titre euh photo Zelensky bi mu mer d'ailleurs Zelensky sax mom gaay mujj nañ trouver que buy dem moom buy manam buy dem ci front bi mom train bu ndaw lay daw train bo xamanteni ni daal ko fabrique comme dar bopp oto moom lay mom lay yoré ak yeneen accessoire yoo xamante ni ñoo nekk ci ginnaawam daal kom ay zaaru douche quoi mais bopp oto la boo gisee oto boo gisee affaire bi zaaru bopp oto la boo xamante ni ñaari nit ñoo ci xaj ak ak lenn loo xamante ni daal comme zaaru toilette lay doon mu nekk ci ginnaawam mais nag boo gisee ni muy dawee dafay dafa gaaw tellement que ba mooy lool waaye mais gars yi ñoom opéré nañ ko ba xam xam naa nag waa Russie la soxalu rek waaye ko soxal woon buñ ko bëggoon wàccee ba léegi wàccee nañ ko waaw bu dee Israël nee na Benyamin Netanyahu moom nee na actuellement ni Israël dafa perte popularité ba tax na nee quinze pour cent si ay israéliens rek ñoo ànd ak moom booy xool maanaam buñ doon téeméer fukk ak juróom nit rek léegi ñoo ko si bëgg sondage bi nga xamante ni sondage bi ñoo ko def euh, mardi bi passé si lañ def euh, sondage bi te booy ñu ko bëgg ñu si bëri ay militaire ay ay militant moom lañu waaw ba tax na daal neenu euh, enquête bi nga xamante ni mën nañ ko aussi tamit si israélien yi démocrate yi nee na cinquante six pour cent si ay nit yoo interrogé laaj pour offensive militaire yaa xamanteni ni ba xam moom moo gën wala wala récupérer moo gën si récupérer otage wala neenu vingt neenu booy xool neenu cinquante six personnes yi neen cinquante six pour cent cinquante six pour cent yi ñoom dañuy wax ni euh, contre offense offensive bi moom mooy tax ñu jot euh, otage yi mais neenu booy xool vingt quatre yi ñoom ñoom li ñu bëgg mooy ay échanger vingt quatre pour cent mais cinquante six pour cent si israéliens yi ñoom dañu offensive bi mooy tax euh, ñu jot euh, seen seen seen seen ba tax na mën naa wax ni vingt six cinquante six pour cent yi ñoom dañu xam ni waa waa Gaza ñoom dañu xam bu baax que ni euh, échanger dootuñu ko defati te aussi tamit li nu teg kom condition dirigeant yi duñ ko nangu xam naa loolu moo tax en général ñoom xam nañ bu baax que ni waa waa waa Hamas yi dootuñu nangu te di échanger ay prison loolu moo tax loolu daal moom la rapport bi wax neen vingt quatre na vingt quatre pour cent si israéliens ñoom dañu wax ni nañu libéré milliers de euh, prisonniers israéliens palestiniens yi nu jàpp ñëpp na leen delloo léegi ñoom ñu jox leen seen i seen seen otage ñoom tamit xam naa nag en général ñooñu moom mooy ñi nga xamante ni seen mbokk bokk nañ si ñinu téye ba léegi ndaxte da ngay gis ñoo xamante ni dañuy bàyyi pap mag yaayam dañuy bàyyi yaayam maanaam dañuy bàyyi yaay ak doom mais pap ji dañ ko fay téye dangay gis ñoo xamante ni dañuy bàyyi dañuy bàyyi yaay mais doom ji dañ ko fay téye waaw yooyu yëpp ay système la yoo xamante ni gars ñoo koy teg mais daal. actuellement nii daal Benyamin Netanyahu moom euh, Israël nekk fa bëgg nekk fa bëgg après guerre bi moom kiiwul am na ñoo xam bari na ñoo xamante ne ni après guerre bi Benyamin Netanyahu moom xaw ma kan moom nee na dem na dem daal lañu wax waaw euh, quinze pour cent si neen quinze pour cent daal si si israéliens ñoom ñoo ko si bëgg quinze pour cent nag bu ngeen ko déggee mooy que ni maanaam téeméer yoo gis fukk ak juróom ya ñoom ñoo ko si bëgg bu des beneen sondage bi ñu def pour maanaam contre offensive bi ak échange de yi neenu téeméer boo boo gis téeméer bo introsé euh, neenu euh, juróom fukk ak juróom benn yi ñoom dañ ni ñu def contre offensive bi mooy tax ñu mooy tax ñu jot suñu prisonnier mais nag neenu euh, am na ban am na ñoo xamante ni maanaam israélien bu doon téeméer ñaar fukk ak ñent yi ñoom danni ni nañu bàyyi prisonnier palestinien yi ñu jàpp yëpp bu ko defee ñoom tamit ñu jox ñu suñu prisonnier ñoom loolu noonu la demee daal ndaxte am na ñoo xamante ni tey boo nee dix pour cent ñoom dañu comprendre am na ñoo xam boo nee cinquante six pour cent duñu comprendre loolu tax ma ko doon leeralaat. waaw naan France plus de cinquante cinq mille entreprises euh, tëj nañ fa si deux mille euh, vingt trois bii nekk nii. Euh, nee na chiffre yi maximum depuis deux mille vingt trois la commencé deux mille depuis deux mille dix commencé mais deux mille vingt bii moom plus de cinquante cinq mille cinquante cinq mille entreprises tëj nañ ah kon de France moom temps moom mi ngi si problème nee noonu nag euh, plus de cinquante cinq maanaam ñi nga xamante ni euh, ñi nga xamante plus de cinquante cinq mille quatre cent trent cinq. moom lañu compte si ay ñi nga xamante ni liggéey ñoo fa daan liggéey cinquante cinq mille euh, cinquante cinq mille quatre cinq aussi tamit ñaa nga xamante ñoo fa doon am salaire deux cent cinquante salariés ñoom ñëpp dàq na leen ba tax daal leenu grand entreprise yi ferme tamit comme ni ma ko waxee neen am na tamit ay entreprise yu mag yoo xamante ni tëj nañ seeni i porte si deux mille vingt trois bi ndaxte ku nekk xam na ni euh, France boycott bi nga xamante ni boycott nañ ko pétrole Russie bi dafa bari entreprise yoo xamante ni moom moo leen daan arrangé waaw ba tax na am na ñoo xamante ni pétrole États-Unis bi arrangé wu leen. aussi tamit euh, gaz bi nga xamante moom leen di États-Unis di jaay tamit arrangé wu leen looloo tax bari na ñoo xamante ni. comme France dafa bokk ci coalition bi ñuy wax OTAN ak coalition xeex Russie ah seen doomi réew ñoom li ñuy def mooy mooy que ni ñi nga xamante ñoo fa amoon moyen ubbi seen entreprise dañu obligé tëj seen entreprise léegi nag mën nañ wax ne chômage chômage bi moo fay bare te chômage bu bare bu bu yàggee mën nañ wax ni population bi ñooy màbb ci kaw autorité yi xam naa foofu lay tàggatoo nag ba suba incha allah. gars di dem Europe ñii di dem ay Suisse ak ay ay ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yépp di dem ay Afghanistan ay Israël ay Iran Irak teere Tanzanie